li ma leen di wax mooy benn candidat moo am Awa Diop Ndiaye nee na benn candidat moo am te ñun lu ñu mus a xeex Rufisque Ouest la nee na leen mu neex wala mu yi wax na ko ci kanamu Yacine Touré Souleymane Ndoye mooy suñu candidat moom la ñuy àndal. dama waxoon dañuy toog rek def nangam weekend bii mais góor gi dimanche bàyyi nañ ko duñu oote wax dëgg yàlla daa daaw bu ko waaye yeewi inspiré man nag campagne feneen mel ni bis west wax leen ma lu fi def rek. moo tax yéen jeunes yi mag ñi yaatu suñu mais yéen yéen a ci des Souleymane ak Karim dinañ leen encadré ñun aussi ak mag ñi dinañ dox guddi dinañ dox fajar li ko Ndiaye saar waxee dinañ dem ci jàkka yi damay wax ne. samedi samedi dimanche sama jambat nek suñu facilitateur ñu diko féliciter dem and ak babu mariam dina and ak tiandu digënté jokul kaw ba ba jokul wacc comité électro quartier nañ ko dox mais nak man nañu xëjjo suñu biir mais buñu déssé ak ñeneen ñi man daf may jaral ma joxe sama bakkan ak ci gey ni bi mu wax loolu ak si Gueye li mu wax lool la ñun Badou Marème loolu la ñu wax dañ ne Macky Sall wax na ak ñun am na lu ñu waxante mais Souleymane Ndoye bu nekkee candidat ñun ñoo nekk candidat ñun Rufisque Ouest mosu ñoo jàppale mosu ñoo jàppale beneen candidat boo xam ne nekk Rufisque Ouest pourquoi nit ñi war ñoo jàppale dañuy ànd di def concurrence di xëccoo pour ñu set kan moo gën a def ci biir nit ñi bu ñu yàlla may safaan am Souleymane indee nangam ki indi nangam ki indi nangam ñi amoon dëj ba seen naxar wàññeeku bu dee ngénte Souleymane def nangam kii def nangam yëf yi oyof Baama def Karim def góor gi Njaay def gis nga xale yi léegi sax ñun la ñuy xool man ak yow Souleymane dañuy dem ba ñoom lu ñuy def sax ñoom Badou Marème ak xale yi li ñuy def sax mooy ëpp léegi lu ñuy def wala yàlla nañ ko yàlla fay donc dinañu ànd ak yéen.